Thank you. daa leen ko wax di daa yàgg naa leen ko wax di ngeen am da nga am taw tawfeex rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñu ngi fekk nekk nekk si liggéey xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo xam ne taw bi ñëpp war nañ cee ñee te ngeen dund ci fàggu waaye rek dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. mu ne ko sëlli salaatan taj mool xayraati tan dala ilul xayraati léegi nag dafay amoon xasida gu ñuy wax dalaa ilul xayraati nga xam ne mag ñi dañ ko fonkoon ay salaatu ala nabi rek la moom rek lañ daan jàng daan ci am tiyaaba joo xam ne kenn xamul nuñ toll sëñ Tuubaa bi ni nuuru daare nag na ko yow yàlla xasida goog ñuy wax dalaa ilul xayraati xasida gi na ko gàccal muy nuuru daare nga xam ne bu fekkoon ne ay mbóot yam amoon secret yool yam amoon yëpp ku jàng nuuru daare na ko double fuuf li muy am ci yool ka jàng dalaa ilul xayraati du ko am li muy am ci yool moom ku jàng nuru daa ku jàng dalaa ilul xayraatu doo ko am nga xam ne kon suñu borom defal na ko moo tax ma ne sëli yàlla nga dool xool salaa tan doolli xool goo xam ne taj ma dana dajale al yiw yëpp waaye mux ji la tan doolli xewal goo xam ne aji gàccal la dalaa ilul xayraati téere bu ñuy wax yiw yi nga xam ne yiw yëpp ñi ngi ci téere boobu léegi nag mu moom nanga maa ngi lay ñaan gu julli-julli xam ne moo may dajaleel yiw yëpp waaye nag dana gàccal sax dalaa ilul xayraati nga muy bëri bëri yiw te mag ñi fonkoon ko lool nooru daare ni gàccal na ko nga xam ne yiw yëppam ci dalaay lu xaraat wax naa li muy teg dalaa ila mooy tegtalu tegtalu waaye alxeraat yiw nga xam ne ku bëgg yiw aw tiyaaba jàngal xasida gu ñuy wax dalaay lu xeraat yi sëñ tubaa na nee na ko na gàccal na gàccal dalaay lu xeraat nga xam ne kon mën na koo gàccal gën ko kawe mën na koo gën a kawe nu ne moo tax ma ne sëla yàlla nga dool xool salaatan doolu xool goo xam ne taj ma dana dajale alxeraat yiw yi waaye nag mux ji la tan aji gàccal la dalaa ilal xayraati mu téere bu ñuy wax dalaa ilal xayraati rek la ci jublu waaye